ron a am sur la campagne proposition contre proposition coalition entre coalition gisuñu ko effectivement mais mais soo dégloo quand la campagne électorale que ce soit Mimi Touré Ousmane ko Pape Djibril Fall ak ñeneen ak ñeneen ñu ma ñu ma seetaan quand même am na des propositions qui ont été faites xëy na la presse moom moo ko joxul importance bi mu ko waroon jox mais à chaque étape de leur campagne man j'ai vu que quand même les def nañ parfois ay efforts pour wax ne bu ñu demee assemblée comme ni ko Issa doon waxee sànq lii ak lii lañ fa bëgg a am euh, le problème se situe où pourquoi on a l'impression que ni le le le bi mu waroon am sur ce que ce qu'ils vont sur lu ñu bëgg def suñ demee assemblée dégguñu ko trop. mais déjà euh, Moustapha. Euh, mhm. Ousmane Sonko proposé na débat à débattre ak euh, Mimi Touré. Mhm. mu nekk euh, tête de liste Bokk Yaakaar. Mhm. yaakaar naa ne loolu rek débat boobu rek bu amoon Sénégal dañ si jëlee njëriñ mais au-delà effectivement boo déggee ñoom seen ay déclaration am na ay proposition euh, yu bëri. déjà wax nañ fii bu Sonko di naan bu ñu amee majorité à l'Assemblée nationale dinañ wax nan nañuy fexe ba wàññi dundin parce que aussi loolu yëpp na aussi ay loi yoo xamante ni ñu bëri ñu ngi koy ñu ngi ñu ngi koy ñu ngi koy wax di ko def ay propositions mais surtout contrôler contrôler l'action gouvernementale c'est-à-dire mmh. bu ñu demee ba di minimiser sax mbiru góor jigéen parce que nu mu ko déggee mi wax mi ngi naan way ay affaire de góor jigéen nañuy wax yu kenn xamul cest à loolu au-delà de jigéen bi ñuy wax mmh. mais on parle des mœurs de notre société suñu particularité société lenn la mooy suñu ay jikko mhm. donc jikko jooju noonu tey jii ne serait-ce pour jikko yooyu rek ñu sàmmal ñu ko yaakaar naa ni war na tax ñu wut ay représentants yoo xamante ni ñu ñu ñu ñu bu ñu demee assemblée nationale dinañu ko defal la donc je mhm. pense que ni débat bi lu tax mënta am wala aussi lan moo tax ba proposition yu pertinente yi mënta am parce que aussi liggéeyu presse bi Moustapha Diop sax naataangoo yi mhm. liggéeyuñu normalement. maa leen fi nekkal de. Hmm. waaw d' accord bu nekkal de fi maintenant du tere dinaa wax li ma bëgg wax <laughs> xam nga lu tax man liggéeyu normalement. damay gis lépp li nga xamante ne lu ñu ni lu safaanoo la wala lu lu lu baaxul la ci Ousmane Sonko day nekk à une. pourquoi particulièrement Ousmane Sonko parce que bon c' est moo yàlla ko def jamono ji non non bu deet mënta ne bàyyi lay def cër yëpp bu ñu yemoon am ñu gedd seen i cër loolu yàllaa ko def messi menul ni menul ni menul ni <laughs> menul ni suñu jour nawetaan yi te loolu kese alors xam nga lu tax ma ni Ousmane Sonko euh, mooy yeewi askan bi te yeewi askan bi tey ji ñoom xam nañ ko sax moo leen tere nelaw ñoom moo tax ñuy def yenn affaires yi bu du woon yeewu askan wi xam nga ni du ay euh, serviteur yeeg ñoo ñoo tax ñuy sonn <laughs> wax dëgg yàlla wax rek te yàlla tax. <laughs> baal naa la. <laughs> alors li ma doon wax euh, Moustapha mooy. tey boo déggee Ousmane Sonko bu ma déggee Ousmane Sonko bu waxee dara loo xamante ni. Mhm. ñoom dañuy jàpp lu polémique la day nekk à la une. Mhm. mais bu defee ay propositions yu intéressantes doo gis fenn. doo gis fenn donc presse bii def relais dafay choisir. Mhm. lan day def reli ak ban relil la bëgg doon justement parmi les propositions de Ousmane Sonko dégg naa quelque part mu ne bu ñu amee majorité les bourses familiales yi doon tudd sànq dañ koy duñ ko dindi dañ koy renforcer mhm. les salaires des chefs de village mu ne duñ ko dindi man dañ ko yokk cela veut dire que quelque part il valide politique u président Macky Sall ci domaine boobo au waaw bon xam nga aussi dafa am lu tax mu wax ko parce que am na beneen jamono yeneen discours la amoon par rapport ak yooyu. Mhm. xam nga aussi doo ñëw fekk sénégalais bi nga xamante ne peut-être comprendre wul yu bëri. Mhm. nga ñëw di ko naan bourse bii ñu lay jox d'accord néew na baaxul ci yow dañ koy retirer boo moytu kooku du la voté. li nga mën mooy nga wax ko ci niveau bi mu toll. Mhm. boo demee nag ba falu peut-être mën ko mën nga ko ni ni ma lay joxee bourse bi nekkatul liquide. naa ko joxee ci la ko subventionné naa la ko defal leneen ak leneen. c'est-à-dire ah. ma ne boo faloo def neneen waaw ah, mais effectivement parce que aussi bon parfois il faut nga ah, xool ni ngay waxee justement loolu la bañ ci homme politique yi non non non non pas ci bu bon pas bu bon d'accord xam nga tey ji euh, Moustapha mën nga xool mhm. nga ni par exemple tey 1000 francs yi nañ leen di jox bu ma faloo dinaa leen jox li gën mhm. mais pas forcément 1000 francs mën nga leen jox proposition boo xamante ni dinañ ci am dix mille francs mhm. te man loolu laa jàpp que ni moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy li gën en fait cest dire nit ki du da ngay continuer di ko jox ay mille francs ak deux mille francs mhm. et au passage euh, ñi ngi jamono ji ñuy wax nii ñi ngi nekk di di di di di financer ñu bëri ah par coïncidence pure coïncidence la wala dañuy def ay achat de conscience xaw ma mais jamono jii waa DER ñi ngi financé ay groupement féminin yu nekk ci ci ci 17 communes yu nekk ci Dakar yëpp ah ñu ngi leen di financer. Mhm. par web sax nañ leen koy envoyé ay 500000 parfois groupe de personnes lay doon parfois individuel lay doon. li may wax nii lu ma xam la. donc pour dire que ni rek lenn rek euh, lenn rek pour daane. waay euh, <coughs> waay euh, non dama dégg nga juge sànq ci ci côté couverture beeg yooyu noonu mais lu ci bëree bëri même dañ koy gis sax ci réseaux sociaux yi est que du nit ñi dañuy gën a concentré wu ci la presse écrite muy papier bi. que télévision ak rajo yi parce que aussi y a d'autres médias yoo xam ne ñi ngi couvert ñi ngi couvrir campagne bi est tey ni nga waxee sànq yamul rek ci benn côté mooy presse écrite bi nga xam ne ñooy def ay une ak affaire effectivement presse écrite bi tax mais pour être man li ma li ma dégg ci ay propositions ci campagne bi yëpp Issa ci réseaux sociaux yi laa ko dégg ah quand enfin déroulé nañ plusieurs plusieurs jours ci campagne bi. Mhm. nga dem ci réseaux pour mën a dégg par exemple Ousmane Sonko yaa ko tudd li ma la wax sànq ci bourse familiale yi li mu wax également sur les grands investissements du chef de l'État ñoom lan lañ na ma def bu ñëwee euh, contrôler euh, le pétrole le gaz yu demee noonu les ressources naturelles. Mhm. yooyu noonu man gisuma ko dans la presse classique mais non lu ci gën a grave rek dem na. li yu ni ni Sénégal ressources gazières mais gisuma ko mu nekk une benn journal. te <laughs> pourtant c'est pas une information. te pourtant te pourtant te pourtant bu ñëwee par exemple bu ñëwee par exemple ñetti coalition wala mm-hmm. benn coalition moom mooy ci coalition de l'opposition mm-hmm. bien que du information mais dafay nekk une. d'accord Euh, est-ce que loolu moo tax finalement euh, parce que là c'est le journaliste que j'interpelle ah Mame Birame est-ce que loolu moo tax finalement euh, yenn sénégalais yi am sentiment que ni nu de la presse defuñu suñu liggéey ni ñu ko war a defee que ñoom ñu nekk des journalistes à notre place par exemple di parodier euh, yenn quotidien Dakar yi ba am sax ñu ci jàpp d'ailleurs di ak même la revue de presse. Euh, euh, bof mat dama jàpp ne euh, ça n'a pas grand chose à voir ah. parce que anarchie bi moom yàggoon na ci presse bi avant ñuy wax waxu campagne et tout ça. Mm-hmm. donc toog nañ fii di insister que site internet yi nga xamante ni dañ koy ubbi parce que am na benn technicien bu toll bitim réew jàpp ne. xarañam war na ko mën a permettre mu créer un site internet buy wax ci Sénégal. Mm-hmm. dama ne loolu dañ ko war a xoolaat. site internet dafa war a tegu comme journal. nu ñu koy amee. Mhm. maanaam am nga autorisation. sooy publier ñu xam ndax da ngay def général. wala da nga joxe sax exemple exemplaire ci bureau procureur sama juumul. Euh, waaw bureau des archives. oui te je pense que c' loolu. moo normal loolu moo normal ba léegi. moo normal waaw mais dans tous les cas xam nga euh, CNRA. Mhm. Euh, ci pré campagne bi fasoon na fi. am na beaucoup de manifestation yoo xamante ne nii dañ koo tere jël prétexte CNRA. article 61 la suma ma juumul. Mhm. Mhm. di wax ne euh, propag euh, période de pré pré campagne du ñu permettre à aucune coalition. muy propagande propagande. Mhm. malheureusement nag bi ñu passé pré campagne bi CNRA moom dafa mel ne ku croiser la balaa toog di seetaan. maanaam xooluñu ndax euh, nu mu durati am na équilibre ci temps d' antenne entre les différent candidat parce que loolu lu war a nekk la nekkul RTS tout simplement. Mhm. la ñu war a waxtaane sax ak Pape Mayel voilà très bien. ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante nii man dama jàpp ne euh, ci ci ci ci campagne bi euh, loo xamante ne nii la dañ ko waroon na euh, régulariser nekkul ne rek tout simplement. ki nga xamante nii moo am les moyens. kooku mooy mooy dem. communiquer qui qui commande comme on dit. très bien voilà te bu boobaa te bu boobaa bu nekkee par exemple yow. gis nga ne avec une avec cinq millions mun nga am une interview ci benn chaîne de télévision. nga mhm. toog wax sa programme. Mhm. beneen candidat bi nga xamante ne ni moom amul ces moyens la mhm. mun la jàpp ne réseaux sociaux yi nga xamante ni ñëpp ñoo ko bokk. jàpp nañu ne à travers ces la ñu mën na fa wax ñu dawal suñuy information. malheureusement ce qu'il a ce qu'il y a à à à te xam nga presse écrite nekkul n'importe quel. Euh, euh, euh, nu mu tuddati média parce que bu nekkee ne tey dañuy def revue de la presse ci journaux yi la ñuy sukkandiku. te dans beaucoup de rajo tey bu ñuy def seen i édition que ça soit la matinale ou même euh, mi-journée. dañuy sukkandiku également ci information yi nga xam ne dañ koy joxe ci presse écrite bi. donc son rôle quelque part est fondamental. li ñu gis nag te yàgg nañ ko wax te Pape Matar na ko sax maanaam mooy dañuy cibler benn candidat boo xamante ne nii. Mhm. lépp loo xamante nii wax na ko ci lu intéressant lijjantewuñu ko mais il suffit mu wax benn propos boo xamante ne nii bu ñu ko relayé mën na susciter polémique ñu jël ko. te hmm. loolu quelque part li nga doon wax nii léegi moom mooy doon inconvénient bi maanaam li nga xamante ni mooy solos campagne bi. Hmm. les programme yi. loi yi nga xamante ni wax nañu ne dinañ ko voter une fois à l'Assemblée nationale. Hmm. ak contrôle de l'action du gouvernement bi nga xamante nii député yi mosuñu ci nekk. man dama jàpp ne. loolu noonu di ko wax lu ñu war a promouvoir la parce que sénégalais yi dañoo war a jàpp ne. Mhm. Euh, euh, bu nekkee législature bi war na changer ci camp comme lu ñuy waxee rek cin bu naree xeeñ.

loolu ban conséquence la nar a nekk ci média yu Sénégal. mais loolu ça serait dangereux parce que comme nu nga koy waxee tey. information yi yu bëri génn na. Mhm. mais fake news yi tamit bëri nañ ci trop. c'est ça le danger des réseaux mais mais c'est ça. Mhm. te tey xam nga bu nekkee ne da nga nekk ci benn réseau social. Mhm. créer benn faux compte. di wax lu la neex. mais amoo aucune responsabilité. tey rek am na dans la contrairement au journaliste bi nga xamante ni benn organe de la nekk lu mu bind mun nañ ko ci topp. waxatuma la lu euh, mu tuddati euh, wax yoo xamante ne nii ñu ko tuddee nañ ko ay saaga ak nag ak leneen. te hmm. souvent dañ koy gis. ci réseaux sociaux mais mais maam Biram. maam Biram Aliou Sanusi maam Biram xam nga euh, man affaire presse bi. Et souvent dangay ngay dégg journalistes yi di ko wax ce son les trains ki n'arrivent pas à l'heure qui nous intéressent. Mm-hmm. man je suis en train de faire peut-être pas une thèse mais une recherche sur la une des journaux. Mm-hmm. muy journaux yëpp. oui y a y a que le sensationnel qui prime. boo buggee léegi mënoo ñoo dawal les unes nga xool bi la. la question jëru recherche kay il suffit de la la question qu'on s'est posée. Hmm. ñu bëri dañ la koy wax. et bi lii moo ko intéressé man dama def émission ak benn waay ñu argumenté. ma wax a wax a wax moom benn baat la wax xam nga ban baat la wax Karim Wade moo ma dàq PDS. Hmm. bi ñu génnee. génn taxaw ci couloir yi mu ne ma gis nga li nga fi wax ci xam-xam yëpp ci Cheikh Anta Diop ay lu nekk nga wax ko fi boo duggee cent vues ngay am. man benn baat bi may wax tey ñëpp moom la ñuy déglu et c'est la vérité. Mhm. Sénégal moom moo toll foofu noonu. ça pas dire. que la presse dafa war a suivre le rythme de niveau de conscience loolu pour man c'est une erreur liir naa El Hadji wax ko liir naa kan wax ko dégg naa Diatou Cissé Coulibaly wax ko maam Less Camara bi nekkee CESTI daf ñu koy wax mm-hmm. presse aussi dafa am rôle d'éducation surtout monde bii ñu nekk nga xam ne la mm-hmm. presse est devenu le passeport universel le sacerdoce des temps modernes tout est presse aujourd'hui malheureusement ñan ñoo nekk gannaaw les micros Mm-hmm. ñan ñoo nekk gannaaw les journaux. Mm-hmm. ñan ñoo nekk gannaaw les rajo loolu aussi c' est une question qu'il faut se beneen bi beneen bi. dama bëgg ñu avancer parce que c' est pas waaw foofu pare naa ci. beneen bi ma bëgg a wax benn parenthèse bi fi jëloon rek la. waaw de. d' allez y àggaleel Sanusi Sanusi àggaleel après. non parce que dama bëgg génn ci loolu dugg ci leneen mais mun na continuer su bëgg. allez y non pour répondre ak euh, ci li normalement bu ñu nekkee réunion de rédaction. war a proposer une. dañuy bàyyi xel tamit li nga li ñu jàpp ne moo gën a incitatif. Mhm. pour mooy jaay mooy jaay. parce ah. parce que y' a, y a cet aspect commercial mais, loolu. Mhm. mais loolu c' avant. loolu léegi danga koy def dans le passé de. loolu c' était avant. Mhm. que ñuy jaay ay une léegi. mais bu ñu demee bay jaay ay une mooy. jaay ay mais bien sûr loolu moo xew ci réew mi. ça veut dire quoi que man Moustapha Diop su ma bëggee nekk ci une journal suba euh, damay fay nekk ci. maanaam dama mais y a eu des journaux yu titré même titre que ça arrive benn jour. Ah. ñeenti journaux bokkule titre même titre bi ça arrive mooy sax changé wu. mais loolu mën na nekk su fekkee y a un grand événement. Euh, les par exemple ñu gañe Coupe d'Afrique on va sa à ce que bu ci ëllëg sa. ñëpp titré si si les Lions. non non man waxuma loolu dara xewul dara xewul. ñu wala ci benn parti politique. Mhm. affaire boo xam ni. ñeenti wala ci kenn nit. wala ci bi wala ci kenn nit. oui loolu am na ñëpp ñu yem di tiit. wallaay daam am na allez allez imam Birame ñu ñu ñu doon ci Pape loolu am na fi xam nga euh, euh, euh, bu nekkee ne man acteur politique. Mhm. souvent sax acteur politique yi koy def mooy ñi nga xamante ni mënuñoo dajale ñetti nit. Mhm. ñu dem def seen nu mu tuddati benn rencontre. Mhm. bëgg nañu autorités yi yëg ko. président yëg ko. président Mango. woo <laughs> woo. woo telle ou telle personne Pape Matar mi xam ne kan la ñuy woo. bien sûr kooku. <laughs> Ah kooku defal la. ci yooyu bien sûr te xam nga lu gën a garaaw. bu bu njëkk. bu uh-huh. njëkk da nga daan wax ne da nga daan wax journaliste te loolu sax bopp mën na ñàkk ne question de corruption. Uh-huh. mën nga ngeen am ay relation yoo leen sax nga organiser manifestation wax ko ne da nga soxla couverture. ooy bu nekkee am na intérêt mu jël ko. Uh-huh. mais ce qu'on a vu aujourd'hui mooy da ngay def manifestation boo xam ne amul aucun intérêt. non seulement doo yem ci ñu bindal la article boo xam ne mu ngi ci journal bi. Mhm. mais yow da ngay bëgg mu nekk à la une. boo moytuwul sax nga woo kii revue de la presse. mu mu defal la ko mu gën cee accentuer. c'est un vrai problème. alors euh, mais euh, Mayel tey euh, li li ñuy wax ni li li ñuy wax ni ci ci presse bi dafay résumer une chose tey te yow yaa ko wax sax bi ñuy commencer mooy faaw rek ñu regretter l'absence de de débat tey jii bu ñu amoon.